nu ko gisee rek man maay Ousmane Sonko numéro 2. waaw sama teewaay fi man maay borom mbir bi. waaw Macky Sall bi ba léegi parewul bàyyi projet bi loolu lañ ci jublu. waaw d'abord euh, fu may lu may fu may njëkkee di ñaan euh, ñi nga xam ne ñoo jege kilifa yi ñi jox leen information yi nga xam ne fa la réew mi toll. waaw pour kilifa yi. gaaw wax si réew mi parce que dafa jot di ñaan kilifay rek ñu leen jege ñu jox leen information yi nga xam ne tolluwaay réew mi ñu mun ci wax balaa dara di balaa leneen di xew mais procès bi moom euh, ay caaxaan la rek moo tax jariñu si sori mais di xamal euh, président bi rek euh, li mu bëgg moom Euh, du am incha allah parce que ki nga xam ne mooy sunu njiit di président Ousmane Sonko ñun ñoo yor ñun ñooy ay policiers am ñun ñooy ay gendarme am ñun ñoo koy aar voilà pour mu xamee ko noonu rek. waaw waaw yëg-yëg comme ñëpp nuñ ko amee rek parce que bëgg dafa dafa dafa métti. bëgg dafa métti bëgg koo xam ne mu ngi fii si réew mi ñu koy teg naka sudul noonu mu ngi koy muñ métti na moom métti na trop mais suñu borom jox na ko nit ñi waaw moo tax tey bu ma ñëwee gis nit ñi dama am yëg-yëg bu kontante bu bu bu bëree bëri bëri bëri di si remercier di si di si gërëm askanu Sénégal bu baax a baax a baax parce que nit boo amee sa askan rek am nga lépp waaw di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax.